kon Sénégal yi xam leen ni Ousmane Sonko dafa daw dañ ni ko tontul ci sa diggante ak ci Sarr ndax laal nga ko wala laala ko mu ne bu ma ko kenn ah. kon daw na nee bi boo ko laaj bi ñëwaat ni ko Ousmane xale bi de kër bi mu demee da ngeen mujjee séq ci li mu wax da ngeen ba mu demee CEDEAO xool nañ ko am lu jël ci ci ci ci bomb te stade lañ bëggoon def mu ne defuma ko complot la loolu dafa yomb di daaw res rek yëpp di yéen Sénégal yi ba naan leen dañ maa comploté ma di ko laaj complot bi kañ la commencé ndax bis bi dem foofu suite bu comme moom nee na dem na fa ndax Macky Sall moo ko yeewoon yóbbu ko fa ak Bassirou Gueye Serigne Bassirou Gueye maire Dior Diagne wala Mamour ñoo ko forcé yóbbu ko surboté tëral ko bés bésuñu ko ñu buddi ko bés ñu pare ñu yóbbu yëpp loolu mooy ko mais loolu amul moo jógal boppam ci biir couvre-feu bi ñi kenn du génn mu génn nëbbu ay jabaram nëbbu ay garde corps-am nëbbu chauffeur am jël benn blouson nëbbu kanamam dem fekk boutique yëpp tëj nañ atelier yi tëj nañ salon yi tëj nañ vingt et une moom rek ci Sénégal mu am loolu ñu di ko nekk ba jot mu ñëw tëju lu ko fa góobee na ko gar loolu laa bëggoon a wax di wax ne affaire Pape am na temps yi defe naa ne dafa mel dafa ànd daa mel sama gars yi dañoo tooñ wàllu de Pape lim nekkee woon fii ak ñeneen di génn ay yoo xam ne dara ci dëgg pour ndax sénégalais yi ba sénégalais yu bëri gëm di foog ni Sonko dañ ko dañ ko dañ ko sosal dañ ko yee pour ko ci oto yow ay tànkam yóbbu ko ne ay aji bés ko ay eh waay xam ngeen ko loolu da ngay fen kon loolu kàcc na tey Pape ñaa ngi ni dugg fii liir naa léegi Sonko xam nga lu mu wax mu ne Pape Alé génnewul dara lim génne bu ko gisee ci internet bi poste bi de mën naa ko léeral léegi le poste de Sonko li ngeen ko nee na Pape Alé internet bi la gisee yooyu ñu ne ko dama ko divulgué ci Pape Alé boo ko génne Pape Alé pourquoi amee doo res waaye jàmbaar gi yi jàmbaar nekk sama gars yi tàppal seen jàmbaar gi yëpp buñ téemee seen clavier yi ak yore seen micro yi <laughs> Sonko gën a tàppale Sénégal moo tax ñi nga xam ne tàppale lañ mën a nekk mais nag dañu ngand ngandalu di saaga nit man lu ne lañ may saaga lu ne man mi nee na ma prostitué nga papa lu ne wax na ma ko tu es un prostitué nangam nangam nangam nangam sam xam kii ba Paris sa jigéen ba bagam xam ngeen yàllaa man keroog bi may déposé plainte Mamour Diallo ci 94 milliards de mensonges 94 milliards de mensonges de Sonko Guy Marius Sagna ànd ak waa kër Sonko yi naan ma avocat violeur ay waay ma bàyyi leen yàlla tegu ci quelques mois rek kaw Sonko tëb ñooñu talatuñ ma talatuñ ma wax li ma sosal ak li ma fenal tey de bu ñu nee violeur Sénégal yëpp kenn la ñëpp di xalaat bu ñu nee ponkal violeur ci monde bi yëpp sax lu sax xalaat URSS wala Australie am na ponkal mu ñu xalaat fa laa am na ku ma taxaw aussi benn émission faram fàccee ku ñuy wax kilifa naan ma yow violeur nga man doom naa sama doom falilu def loo xam ne ëllëg damay xeeb teguñ ca 15 jours ça va ay image génn ci leeral muy négocier di encaisser millions yi di diggaate ay passeport diplomatique ak ay visa moom mi ne joobu naa def luñ koy xeebee moo tax ku fi tooñ man du ma wàlliw de mais cey kuy tooñ borom xol bu rafet tey dëgg te bëgg réewam ba ñuy taal këram foo ne bu ñu ko taalee këram mu bàyyi sonko man tey laa gën a doxantu ci kaw sonko ndax réew bi kenn ëppale wu fi ah fii ñi mën a taxaw ne sama maam buur la bëriwuñ ñu mën a taxaw fëkk sama dëgg le Kaolackois sama maam mooy dernier Buur le père de mon père Fodé Diouf est le dernier roi du Saloum nag kenn contesté loolu mon père est le fils aîné du roi et je suis le fils aîné de mon père comment pourrais-je être un poltron dans avec un sang royal comment peut-on moi El Hadj Diouf ñi brûler ma maison ne me fera pas reculer. Les bandes de Sonko n'avaient rien compris. Même si tué, je continuer le combat. Parce que j'ai des enfants que j'ai éduqués qui vont continuer le combat pour la dignité et pour l'amour de son peuple. Il faut aimer son pays, aimer son peuple. Yékini war a bëgg réewam bëgg askanam moo tax ngeen ñëw naan dañuy taal kër El Hadj di ko jaay doole di ko xoxotal ma ne dañuy perte seen temps am nañu doon tapet ragal mais man doonu ma ko mënoon nekk sa dernier Buur Saalum di nekk ragal sa baay di taawu Buur Saalum ngay sa taawu baay Buur Saalum Fodé moom mujjee nekk Buur Sénégal kon ku toog dama xoxotal xama foo jógee xama ci ban makki nga jógee xam nga ci ban base nga jógee xam nga ci ban ruq nga jógee ni mën ngay napp xanaa kon sama maam ji yëkkatu yëngatu sama baay yëngatu fa mu tëdd ku doon tàppe nag ku doon ragal sa la ku doon toppaatee di leen noot sa la mais ku doon bañ doonul ñeme dëgg taal sa kër la di la saaga di la saaga di la diaboliser du la tax a dellu ginnaaw de ndax li may def barke alxuraan billaay wallaay taalay Sénégal tam di def ak sama njaboot dañoo war a défendre Sénégal defuma ko pour kenn même pas pour man mais pour ëllëg suñu ëllëg njaboot xam ne suñu bàyyi bañkat la woon Sénégal rek la ñu am ñun mënuñu dem Mali mënuñoo daw dem Mauritanie mënuñoo dem Angola Sénégal la mooy Sénégal yi nañu àndandoo sàmm Sénégal la laan bëggoon a wax di leen di leen sant di leen gërëm ku am question nag